ah maa ngi sama kër papa. sëñ Assane Fall. góor yàlla sëñ Assane Fall góor yàlla dee ko ci. sëñ ah, ba may commencé fii laa ubbee ba may terminé fii war a ubbee. Mhm. parce que dani ma Pawlish ma ne quoi ah, mu ne ma génnal dem génnal génnal dem génnal dem mhm. soo defee Sénégal yi dégg réew mi dinañ dégg. ci sa njëlbeen. son bii may génn nii nii nii. bi ah, may génn classe bi moom mooy génnal nga dem. Serigne Assane la yokk fit daal. moo ne ma demal teel lii defal lii ak lii boo demee li nga xam ne fi nga doon jaar ak ak fi nga bu na. Hmm. moo tax ma ñeme émission benn kër Serigne. waa ñi ma daan dégg nga di leen tudd nag. a wax rek. ñoo ñoo munuñu naka dama naka <laughs> dama. ngi mel ni Messi ak Neymar. kii yow la. déggoo man la. Ah. nga man du ma fen yow xam nga man man dama damaa xaw a reew. waaw. <laughs> waaw te loolu dafa am ku munul dama naan munut. sëriñ sëriñ sëriñ du bëgg tiktok bu bari. waaw si yàlla lu sëriñu tiktok moom. sëriñ fu loo génn ci àdduna te see du sëriñ du nekk téer sëriñ du bari nekk ay téer lañu woon. ay ancien téer yu bàyyi. ancien téer yu bàyyi ñoo jënd roof jënd popoline jënd xartum jënd BCT ak renfort bëgg a nekk sëriñ sénégalais dëkk bi dafa commencé yàqu. dëkk dafa commencé toj léegi sag guddi xool boo duggee TikTok sëriñ si ñoo ci ëpp te sëriñ guddi dafa waroon téye kurusam. kurus waaw yore kaamilam di jàng di durus di ñaanal di ñaanal réew mi du ñaan wax ma boppam. di hmm. ñaanal réew mi sëriñ su la tax a nga ni kii la. sëriñ su la dàq rocc tuñ nga ni kii la sëriñ su la dàq solo yor juróomi téléphone nga ni kii la sëriñ su la dàq doxaan jawru jaaw nga ni kii la ci tiktok bi lay nekk di wax lu ñor ak lu ñor léegi billaahi wallaahi barki alxuraanu karim man benn sëriñ nga am ni li li aadamoo di def ci góor jigéen ñi den di leen xeex loolu dinaa xeex sëriñ si bis ki da tey xam naa ne mënu lañu ma dara tunu mënu loon dara rek dee naa bu yàgg Fallou yaa jël engagement boobu su ma ko jël nag te su ma ko parce que waa Europe sonn nañ Hmm. ñu ngi leen di lekk seen xaalis ba pare hmm. dañuy lekk ba di doxaan tas seen i sëy ñoom waaye da ñoom ñoom duñu ay sëriñ ñoom ay ay courtier lañ kon courtier kër ni mu amee courtier sëriñ am na di nuyu sama yaay Rokoy Dramé hmm. nga xam ne Messi la moom kii mooy Messi maman Rokoy borom ceeb bu neex mooy Messi bu neex lañ jox boisson bari bari te jour bu la ñaanalee nga ba àddina ni ni jëkkër ji mel la mel li li ne ci jëkkër ji mi ci moom ñoom ñaar lañ te li li garaaw dan dan naan ma Pawlish ma ne ko ah, li tax ma ko ba ñëw ci ñun ay sëriñ lañ dëkk ci booru ci ci booru police bi. waaw su lay defal boo gisul li lay defal demal plainte te buñ plainte dañuy dem. waaw ñoom sax na mën a kon xam nga ragaluñu. Ah. te te jabaram barke Seydunaa Muhammad damay waxtaan ak jeeg ji ak ñi bëgg a sëy sëy bu baax wax dafa am bitigu jigéen. bitigu jigéen ñi naan bitigu di jaay ay fer. di hmm. ay cuuraay dafa am bitigu jigéen boo xam ne day ñaanal day ñaanal jigéen. ngir seen ni sëy gën a dëgër. boo mënul am doom boo feebaree jaa loo xam ne lu la dal ci loo xam ne ci affaire jigéen la. Mhm. pour sëy ak ñaanlu ñoom ñoo ci ay kii nag du sëriñu falaa falaa. sëñ moom def na ay preuve am xanaa kuy xool tegtal rek xam ni sëñ Assane def na ay preuve am loolu ñun ñëpp ci d'accord. sincèrement te ngóora man gis naa koo xam ne ba mu ba commencé yëg boppam kenn xamu ba mu gëjee yëg boppam kenn xamul kañ la bu yeewoo tuba ji day tàpp mu tëdd tuba ji day tàpp. muy añ tuba ji day tàpp muy sanga tuba ji day tàpp muy xëdd tuba ji day tàpp muy julli tuba ji day tàpp lu muy def day tàpp kenn ko yëkkati ba tuba tuba ji léegi moo gën a rafet tuba fas bu yeewoo mu jugle mu tëdd mu jugle mu nelaw mu jugle xam ko faj loolu Serigne Assane mii hmm. am na mag yu bari yoo xam ne seen jabar yi dañuy fay te dañuy sëy yow fukki at ak juróom-ñaar dara dal la nga fay de wuti xale loolu mm-hmm. indi mm-hmm. njaaloo parce que li jigéen ñi bëgg moom la am mën na ci dara mënu ci dara ndànk sax man koo faj ay nga ah loo daloon ah, moom xam na loo daloon man téléwoon boo ko xoolee sax man kii da doon gaaw a wàcc gaaw nga xool wàcc nga piis ma wàcc nga reetaan ma wàcc loo ma def ma wàcc ñu tuddee wàcc ñu léegi nag ki ki yow a faj. sëñ Assane léegi dimbali. sëñ Assane looñ ci mën a wax. dimbali réew mi. ah xoolal sëñ bi damaa bëgg a téye lii ak affaire am boo gisee man ma ma fonk ko. <laughs> Euh, boo duggantiwul ak moom doo ko xam. Uh-huh. soo dugganteeg moom di nga xam ne ku doy waar la. Mm-hmm. ci dëgg lay dox. du ànd bu fekkee da nga da ngaa nekk ak moom te nekkoo ci dëgg bu subaa dana la wax yow da nekkoo ci tus yow. Mm-hmm. kooku ragal yow ko benn doomu aadama mm-hmm. sëñ bu mu jébbul sax bu nekku ci dëgg ëllëg dana taxaw ne la nekkul ci dëgg loolu moom xam naa ko ci moom mhm. moo tax kuy ànd ak moom bu dee yaa ngi ci dëgg di nga yàgg ak moom bu dee nekkul ci dëgg dana ne la xas la na nekkul ci dëgg mhm. man nag li mën a ànd ak moom képp ku ma defal gisoo ma remboursé la man maay sëriñ Assane Fall remboursé mhm. am na ko ne ma man loolu ba ma sosoo ba léegi yow rek laa dégg ngay wax bu wax waxu ma ne ko xam nga lu a loolu fukki at ak nga koy gëstu dara nekk ci boo ci amul résultat dootu ci am résultat dëgg la parce que nit ñi dañ leen a naxa naxa naxa nax ba boo bëggee xool payant sax demal ci sëñ si dëgg moo tax man képp koo xam ne jox naa la garab wéeroo kaay ma la am sëñ ku toog ay at mënul see nga fexe ba man lu manul am na ku ne ma heure boo jullee yow xamal ne ñu ngi lay ñaanal mm-hmm. mel na man ci Sénégal maay wax su ma la ñaanalee gisoo kaay ma la am musala ma la joxee garab gisoo kaay ma la am ma neexaluma kenn loolu wax ju leer la. Mm. noonu nag bu ñëpp defee ni man danañ xam ñu teyaay ak nekk kii loolu tax ma ànd ak moom. dëgg la ku naqaree àndal la nag ndax ndax loo mën na toll noo mën a mel boo nekk si dëgg dana la wax ëllëg dana taxaw yoon la xam moom tus mënoo dara kon ñi bëgg a moom nañ nekk si dëgg. Mm-hmm. man mi di wax ak man tey jii bu ko nit woon na ko police sëñ Assane Fall li ma def gisuma ko ëllëg dina taxaw si kanam caméra yëpp ne xamoo dara. loolu dëgg la donc bi am na koo woo barki démb man ak lii may nekk yàlla ma des àllaaxira Europe la te maa ngi amoon benn sëriñ bu ma defal vidéo hmm. sëriñ bu ma defal vidéo vidéo bi daw mu ne ma Pawlish ba nga boole ma diw ba mu coupé da avant mu coupé dama ne ko kaay ma dimbale kooku mënul. xamul dara waaw parce que bu man ko suba laay bañ parce que dafa am lu ma mel ci hmm. sëriñ bu ma fay nag ma defal la vidéo daa la waxee parce que loolay sama liggéey. Hmm. sëriñ bu bëgg a succès ne man maa bëgg a succès damay ñëw parce que temps yi moo niin man xaalis laa bëgg hmm. ñoom dañuy gi ñoom ñoom may fay xaalis defal ma vidéo amul sama defal vidéo sa yaay defal la vidéo sa papa seen waa sama defal yi yëpp vidéo jaay la damay xam naa ne au fond man doo ma xam naa ne doo mën a mënoo parce que sëriñ dëgg war ñaanal naan ma dimbali ma waxal nii laa mel ak nii ak nii damay xam ne kii ayut kii ba de waxuma ni mel kii wax xam nga Rambouillet gën a leer sëriñ du nekk téyeer. du nekk ancien téyeer. ancien yu perte yoo xam ne nekk ci internet di wax lu ñàkk fayda di doxaan jabaru ji ñàkk fayda ñàkk fayda ñàkk sëriñ dëgg mu min ñu jot war nañoo dugg xawlo di jàng seen durus wala boo jàngoon sax nga def tëddi nelaw bàyyi xale yi tiktok tiktok daa am ñu ko moom du sëriñ ñoo moom tiktok boo leen bëggee jàpp sëriñ su ñàkk fayda une heure ñu solo ba jekk di seen tuñi te duñu yore si kii moom yombal xiyam bu kurus moo leen di ñëkk ñuus kurus moom kurus dina leen ñuus xam nga yow xiyam ah. non xam nga yombal xiyam ñëppay jug kurus day jug kaamil day jug kurus kurus mooy kii ay barki yonent yàlla sëriñ si xamuñu comme ko laay li danaa la kurus da jene bal kuy kurus ñu ñu koy njalabaan loolu la ñuy wax xamuñu dara ba pare ñàkk fayda ba sëriñ du nekk kaf sëriñ du kaf kaf ba pare roccee tuñi roccee ko xeet li ma mel ci sëriñ non li ma mel si li may kii moom kii moom non kaay nag tey waxi nit laa wax de waxi dafa appareil la su ba ma li wax dafay ah. waxi nit laa wax moom parce que daal li nga doon wax ñëpp xamuñu dara barke man mooy waaja. pardon maa ngi ñooy ànd wuti gàllaaj te fu di wutee gàllaaj dañuy jaar ba màmmi loolu wut fa ay garab xoob ko def ci def ci ko déedéet ma ne ko sëri garab te xamuñu na garab yoo xam ne naan dañuy yokkul mais da lay da lay rey góor yu bari ndoxum siti yi ñuy yor ay ndoxum siti lay indi ay kurobët. merci beaucoup suñu bëggee jàpp versé gi nii remboursé gi nii. jërëjëf maa ko tuddee Serigne Assane remboursé. remboursé loolu leer na kon. 40 Serigne Assane di nuyu sunu yaay Rokoy Dramé. Mhm. borom añ bu neex mooy soxnaam. Mhm. soxnaam tamit lu la ñaanal jàpp. ngan daal moo ngan daal moom mooy docteur jigéen ñi. kii mooy Messi moom mooy Neymar. Neymar xanaa loolu jeex na. jërëjëf Pawlish. te boo leen guux xam naa ni ngeen baal ma sax. seen affaire yi mën na bañ a ji ku ku jug naa la may nga bugg ko tuuti ay ah, ah, ah, coono <laughs> eh, ngeen ñam rek xool bu ñibbee ngeen xool ku baax la daal. léegi boo loolu la ñu xamee loolu loolu wér ne. waaw waaw jërëjëf papa jërëjëf. wala ñoo ngi lay nuyu bàyyi la nga ñu yor ñu lay ngi lay nuyu bàyyi ngi nii waaw. Univers Pro Média waa ngaa nag buur Pawlish ak succès bi ak succès bi ma yeewoo ndam bi ma yeewoo mbégte bi ma yeewoo calan bi ma yow attirant bi ma yow santé bi ma yow Sénégal téye gi ma moo tax ma yow damaa yeewu belli. yeewu nice quoi ci benn aw yàlla barke Seydina Muhammad yan yàlla lii lii si amuñu yi. <coughs> waxi dof dong lañ. jàngatu xasida yi xasida yi sax ñuy jàng alxuraan amuñu lii ma am nii te lii ma te am nañ yàlla nag ñoom parce que yàlla nag ku am yàlla am nga lépp. Hmm. comme yonent bi am nga lépp man am naa yàlla am naa yonent mais li nga xam ci alxuraan xawma ko waaye amuñu lii ma am nii. waxi dof waaw te waxi dof laa ko amee. léegi Pawlish ak ñoom lu yow saytaane fi misé bañ a xeewi nekk naa fekk di nitu finna di cochon di di bordel réew imbécile kas lépp laa si dëgg sa xool ñàpp sa waaw téega sa xool lii la loolu xew rek a neex wala yeneen journaliste yu manqué yi may woon ak waa seen bës ñu gën a manqué sow ah, ah, allez allez-y dama ko bëggoon laaj rek <laughs> eh. d'abord bala ñoo camper le débat ñoom ñaar euh, diggante Ngaaka ak waa Akhlou Brick ñan kan nga faral ci clash man sama bopp laa faral faralu ma kenn parce que dañuy game damay game faralu ma ci kenn yow looy wut si game bi seytaane naa fekk fi monsieur bordel imbécile pando la dëgg soxol ñam soxol moo ci bool lu leen allez allez-y dama ko bëggoon laaj rek <laughs> euh. d'abord bala ñoo campé le débat ñoom ñaar euh, diggante Ngaaka ak waa Akhlou Brick ñan kan nga faral ci clash man sama bopp laa faral faralu ma kenn parce que dañuy game damay game faralu ma ci kenn yow looy wut si game bi seytaane naa fi fi monsieur bordel imbécile pando la dëgg soxol ñam soxol moo ci bool du leneen <laughs> du leneen du leneen bool du leneen et puis nga osé tey génn kii gis parce que intelligent mooy rab réewande mooy rab xel mu sell mooy rab waxi dof mooy rab parce que rapport euh, rapport nga xam ne nit yi wër biir en fait rab waxi dof rek ratatata ba loolu lay wax ubbi sa ñàpp loolu lay wax ratatata ubbi sa ñàpp loolu kese kese rapport daa way way boo xam bu na koo jooyee loolu awadi wala fafati wala baxaw wala dabrent ñoo ñoo way way sama jigéen laay laay <laughs> demal nga sëy ji loolu ak bamba ji faal jooli naa ah ah, ah kii man xanaa xamoo xat ko laa du ak ba waaw waaw ba ko jooy lool ah, ah, doo xale biir kër ma cënd xale bi weex ba ma de mu ko catoo bu to ma koy cat ah yow sa flow foofu nga ko jëlee déedéet man dama intelligent waxi dof man am naa lu ne ci Sénégal du ma gaaw xew de. mais mais dix na ci classe. non moom moom amul classe déjà ñàkk na classe xasaw na ay poxotaanam xasaw na gémminam tooy na su su tànk ay tànk weex na ër na te en dafa fibrom bu ñu ko day dee abaa bi génn. non damay wax lu leer parce que classe yi man maa. ban ge du dof na déjà moom wérul moom ma nga si buxtaan def bu ñu woon fële Mauritanie doon jaay foofu xar. <laughs> et man <laughs> mm-hmm. mm-hmm. waaw waaw maa ngi ci tànk taxawaay sa ménager mi ngi koy dox. Bousso mi ngi koy dox. Bousso ah, ah. mi ngi koy dox. Mm. léegi ñu ci ñu ngi ci kalan euh, ñu ngi ci kii parce que mi ngi def ay jéego xam naa fii euh, lundi bii di ñëw incha allah war nañoo commencé démarrer featuring bi day génn bientôt. Wally mooy def yow featuring quoi. fan lay wooyee Wally. fan lay wooyee maanaam fan lay wooyee fan fan. Euh, ba ci ban. mais fan lay wayee fu muy wayee cest à fan. yow waxuma la ay gaam de fan lay wayee. au niveau fan lay wayee lay wayee tànk lay wayee la bopp lay wayee nopp lay wayee. gémmiñ lay wayee man fan lay wayee. yow gémmiñ. Eh, kon lu ne mën na am ci àddina. si. a arrêté. de man xew laay bañ moo tax lu ñëw dama ci dugg leen daal laa dugg alxuraan ak dee ak police waaye lu ñëw ci àddina loo xam ne pour réew mi la waxe dof la wala yëfi dof dama ci dugg xew li tax bañ ko maa xam fan yii rumeur bi man nit toog naa nit woo ma. buur Pawlish Mbaye dañ ko arrêté. je ko a. man comment arrêté fii à la gendarmerie dañ ko ay volé. dañ ko koy jiñ rek volé. waaw man loolu ah, ñi ma koy def vidéo tamprene fa kii ah, ah, emprunté dafa bari man ku ma xool sama liste su ma volé dëkk bi gën a toj sama réew day gën a yokk xaw ma sax luy volé pour ma géwël laa. Mm. doo ñàkk yoroo ci ñàkk du ma def yoo xam ne su ma jàppee sama famille ñooy ñooy jooy. Mm. bu ñuy def na xam naa ko parce que xale laa damaa toll jeunesse xam naa ni koy defee waaye ni ma ko def ma leen gën a intelligent li tax dof ma ñu ay ñoom duñ ay ñàkk bay dof ñàkk bay re bay amul bay re aussi ah, mayoon naa ko bay re léegi day léegi day puus ongul nguur waaw dafa puus ubbi place pour day puus ongul ay xeef waaye moom li mu bëgg la dem bay bàyyi non pas du tout arrêté li mu bëgg loola def Ouzin mu ngi muur di pose ongle léegi loolu la liggéey. barke alxuraan muy dama. léegi coow lii mbay si mbaay génn fan yii. kan mbay si. mbaay mbay si Wally Seck Ndiaye waaw mbay def benn réplique. pour lan ne ku ne Wally Seck ko atteindre mystiquement. dañ ko jekku ci baat yi. Ah. waaw loolu dëgg. waaye li ñu mën a li tax ñenn ñi supposé wu ci loolu. ma mhm. gis nañ ni euh, Wally jamono yi accident concert Espagne bi annulé. bu almaan bi almaan tolof tolof yi si ses di tegaloo ba tax ñenn ñu ne est-ce que atteindre ko ja maanaam jekkuñ ko ci baat yow mi ko jegee xam wàll ci guddi yu sombre yi mu nekk guddi yu sombre mooy lan mi ngi dal oto mu ngi dëkk kër gu rafet mu ngi tukki ah des fois tëgg mu bañ a tëgg mu amul suñu borom mooy xool li ko neex mu dogal du hmm. dëgg mais ak gàllaaj amul. gëmuloo gàllaaj. non man moom sérieusement ci moment bi laa koy soog a gëm muy sëriñ bi mais gëmoon gàllaaj. kon gëmoon ni wàllu jëkku nañ ko mystiquement. waaye jëkk boo xam ne yaa ngi way te doo feebaroo dafa dara soo génnee ñu yóbboo galaaj kon xam nga galaaj kan la jàpp ñu atti ci fay yi ñu jaay ay ay dànk ñooñu ñooñu la galaaj jëkku. bari artiste moom fi xew. artiste yu bari xew nañ fi kay. ay comme kan yow léegi artiste yow léegi kan ngay dégg léegi Pawlish Youssou Ndour waaye rek ngay dégg léegi te man dama artiste damaa ñëw pour yaakaar bi rek. ay Sidi Diop ay Pape Diouf. non juste ko ne mel na pas ay loolu ay ay basketteur ay jaay ko mango Sidi Diop Sidi Diop nag li may intéressé buur mooy sama vie ah, parce que ñoom li ñu dund loolu laay dund léegi parce que man aar ci laa bokk man foo tudd parce que foofu laa bokk léegi. foo tuddee Youssou tudd. c'est normal parce que doo wax Pawlish te gisoo Youssou Ndour doo wax waaye te boo tàppee YouTube boo nee Pawlish ngay gis Pawlish nekk ca kaw a kaw Youssou Youssou Ndour ci euh, avant waaye avant man ci foofu man waxi dof laay wax nit ñi mën nañ ci gën a abuur ah, bu jeexagum ne di nga ma laaj bu ma doy. waaw non mais non non non non mais doo ñu conditionné man damay laaj li ma gëm parce que. buur man xam nga lu waral loolu damaa xew. buur buur nit lu muy ñaan yal na ñaan yàlla xew buur xewee gën a métti ci lu yàlla bind. da damaa gis ñu xewee. damaa gis ay artistes yu xewee. barki Seydina Muhammad te ar buur boo xewee bu du la yëgal leen lu neex. yow da ngaa génn sa bopp ci ñi xew yi Lich yow gars yi nee nañ danga da nga xew yi amatoo benn amatoo benn notoriété boo génnee kenn du la kenn du la faale et cetera loolu aussi lan nga ñu siy wax. bala ñoo campé li nga xamante ni moom mooy mbirum euh, clash bi parce que duñ ci sot duñ ci duñ ci génn noonu ndax gis nañ ñoom ñaar ñëpp ku ci génne rek ñu ni sa moroom moo gën a aay yow il faut que ñu am sa appréciation par rapport ak ñaar ñooñu euh, yan ñoo la ci gën a marqué ak kan moo gagné jamono ji nii nii nii nii ci clash bi. man ma xam naa ne man mii maa hmm. que ñoom clash lañ dama def école. ñu dëkk. Ah, duñ bëgg ah ñoom lu ñu dugg ci clash c'est-à-dire euh, defante waxante lu ñaaw waxante ci da ma man foofu laa bokk man que man foofu xam la war a wax yéen ñett kan moo gañe non yow yaa ngi soog di génne ñoom génne nañ ñett yow yaa ngi soog di génne ma génne naa ñaar danaa ma yéen kan moo gañe ñaar laa génne bii tey la génn foofu laa man loolu boobu laa bokk yow en plus nga ne man damaa xeewi waaw euh, ñaata nit ma sarax pour ma defay émission. ñaata nit ah, ah, ko en direct moom. ñaata nit waaw ñaata nit ma woo pour ñu def moom mi moom mi la moom mi tuuti xew yi. allez vas-y. ñaata xam ñaata nit ñoo la woo pour saraxu la. Oh, wax na rek waxtaan parce que ni nga ko rek pour ma defay émission yow foo jaar <laughs> non amul amul noppi. c'est que léegi yow euh, fi nga bëgg a man dugguma ko man man man déedéet man je suis pas important. ah ah waaw moo di tontu pour nga wax la après ma attentivement. ah d'accord maa ngi déglu man je suis pas important ñoo la faawoon ñoo la ñoo dem ba bëggatuñ la ñooñu ngay tontu mais pas man. pare nga waaw yi xam naa ni. yónni ñu sa bopp. yow ma yónni de. waa xaar rek xaar nga defaraat bayra bi. da ngaa da ngaa wax noppi. da fay quoi. Mhm. wax noppi. léegi da may dul attentivement xam naa journaliste yi ay ay nitu intérêt lañ. waaw jarul reetaan de. sama gaañ nga de. amu gaañ de non non. waaw d'abord rek. fàttali man xam naa ne ay nitu intérêt ngeen. dëgg if ma nga jégal moom sama waay la. if ci laa bokk. yaay pay léegi moom def na parcours bu ne pour jot ma émission. yow bu nekk mais attends mais li muy wax moo amul parcours bu nekk la ban parcours laa def. may ma vite fait moo eh, ok. Oh, non non ah, ah, ah. bu bu boo wax rek jarul nga nag moo moo moo moo moo bàkkoo noonu man tànk jàll xeewul du ma te yàlla xeewee ko pour ma tëgg wax ci tànk yàlla xeewul du ma te yàlla xeewee ko man ci dëkk bi laay dëkk buur ñiy def waxi dox dama leen gën a yeewu dafi nekk Sénégal yàlla maa man maa gën a nekk nante maa la dàq solo maa la gën a xew maa la gën a xam temps bi muy doxee mhm. te man amoo bëriwuma ramba ramba ma dama soirée man ëpp da nga ma gis ma dama gis ma benn soirée lay dem muy waay rek lay dem waali képp te nag ni ma ñëwee bariwul ñaanu ma kenn dugguma ci yoxi kenn dugguma sama bopp laay laay lijjanti te buur dama xam ne si xew buur buur boo xewee barki Seydou naa mu xamoon du la yëgal lu neex ci àddina hmm. yëgal lu neex du am ci yëgal lu neex amul benn kaamil du la yëgal tuuru famille du la yëgal sorti du la yëgal corée dara du la yëgal matinée du la yëgal piscine du la yëgal lenn du la ko yëgal lu lu la la yëgal ay jong bu doom da ngay retande yu métti yooyu la la yëgal yu métti yooyu ay xarafal ah, ah. ah dama koy bàyyi ay ay jongu ay tëccu ci loxo ay bëy ay bëy ay arbis ay ndoxu siti ay ŋas loolu la yëgal te ay xuuxaan te bu la ko yëgal li la ko moo gën a metti aloo boo ñàkkee te ni gën a metti xew a pare ñàkk xew a pare ñàkk gën a metti ci lu yàlla bi ni la ko yëgalee metti ñu mm. la yëgal dëj ni la ko waxee moo gën a metti ki la yëgal Yves nga ne waaw bu la ne allo allo Yves sa waa def bur dugal gaañu da nga gaañu duur la gaañu yéen la gaañu duur duur la gaañu kerek nga la kerek nga la kerek xoolal xoolal ñu ne peut-être allo di nga Yves allo Yves waaw bur dugal dafa ci loxo kañ la béy nga def ñu béy na daal ci loxo ñu wala arbitre la kañ la arbitre loolu la loolu la la koy gën loolu loolu la koy gën boo amee xaalis ba pare xew allo. Yves ça va na nga def buur yëngani ma wàcc ma wàcc liggéey léegi nii kañ la wàcc nga ni billaay wallaay démb la wàcc yéen heure pour hôpital hôpital roi roi ba dee la gaañoo ay waay ndeysaan ngay ay waay yan xam naa ne sa xarit la woon de parce que yow am nga xew nga mais boo ñàkkee bu la ko yëgal ñu ko yëgal allo Yves kii gaañ bu ñu da gaañ da gaañ démb sëñ bi waaye wax nga loolu dóor gaañ la léegi loolu ban jamono lañ léegi léegi ñu gis ni ñu gis ni ñu gis ni génne nga génne nga benn clip ci ay heure rek euh, nombre de vues explosif comme ni koy ñeen ñeneen artistes yi di clashante di defee quoi c'est quoi le secret soo bi moom neexul mais lan moo tax bu nombre de vues euh, élevé wu nii comme ça. sant yàlla la ak am ñaan ñaan ju baax ba am yaay ju baax muy suñ sama yaay ay da bàyyi na ko yàlla bàyyi am maam Bintu Dieng mu ñaanal ma gën maa dolli ay ñaan xam nga man foo sëriñ leen la. fonk say waajur gërëm say hmm. xam say waajur dimbali say waajur en plus am yaay joo xam ne man dafa mat yaay hmm. muy yaay ju brave hmm. mun suñu yaay roqee Dramé kenn ñoo da ko caat na mun Seexul Xadim ak jëkkëram na nit ñu bari ñoo xam bu leen nax da ci ay a naxee Seexul Xadim jeex na ak soxna Baali ku koy nax ci foofu nga koy naxee roqee Dramé mun màggal du ko sinap man mën tiwaawante du ko ci na mën defal teraanga nit te du ko ci na suñu borom may ko xam-xam boo xam ne berti alxuraanu karim billaay may ko nit ci dox ci ak kii sëy moo ci ay sëy menn mi sëy munoo am doom taq bi wala jaxasoo bi munoo am doom sa jëkkër bëggu la nga am problème mu sëy say goro bëgguñu la du la wax dama koy damay liggéey jàpp la ray sa jëkkër day bu la bu la defee bu la defee ay ñaan ba mu sax waa koñ bi ilimaan bi sa dañ lay bëggaale ay ñaanam la moo tax du ma xeewee li tax ma muus moo tax fu ma ne damay xool kër yu baax sëriñ yi mënoon naan da ngaa aay aay ñu de ay téer ay jaykatu ay ay mais mais damaa intelligent de diffamation sama biir nekk li ma ci bind diffamation daa ñëkk a jàng ci àddina yéen a man damaa def léegi ma may dem ak léegi bokkul de léegi ma may dem ak léegi laay ndax buur maa intéressant léegi nag dafa tuma de. ci ci mbirum yoon boobu noonu la ñuy rebondir parce que boo euh, seetloo di topp actualité ñu ngi ñuy jox information ci kaaw Kaliphone bi. ndax euh, fan yi ñu génn sama nekk ci bu ma ci laaj xaw ma Kaliphone déedéet ba affaire politique sax affaire affaire nguur la dinaa na ci laaj du nguur du politique ndax du politicien xam man da ngay ma daaneel collège affaire ah, la viol moom xanaa moom moo rek fii ñu viol bari na de hmm. ku ko yebul def seen sa def sa kër caméra nga ne ñi ñuy violé violé yu bari te xale jigéen ñoo lay man de suma demee bay doxaan bay doxaan comme ñetti doom wala juróom benn doom nga xam ne xanaa viol doom foofu non viol mën naa am viol mooy moom oh, xale yi ñoo ko gën a sentir xanaa xale yi nga xam ne cam ñoo ko tay de viol fu moom lañ koy jiñ genre du moom sama yoon ne ko ci wax ma ni jëm may yéen may suma xaw ma sa téléphone ah yow euh, xam nga nag xam nga tax ñoom ñemewuñ Kaliphone. waaw Kaliphone il est vivace. vivace moom buy buy buy def rek. waaw day dal seen kaw boole ko ay saaga yu metti te Pawlish xam nga ne bu tàngee ba tàng day reculer. xamoon faale ma Kaliphone. Hmm. faale ma xaritu Kaliphone. intéressé ma yóbbu ma xaw ma ni sax dèjà am na liñ koy jiñ daal xam naa ne xaw ma ci dara am naa droit wala amul droit. fekk ma fa ci oto bi fekk ma ci intéressé ma du dëgg ah. Hmm. man sama bopp laay intéressé man man nu ma xewee laay lijjanti man. mais nee tey defeere nañ ko loolu yaa ngi doon xaar ci loolu dara bàyyi léegi ñoru ma man jàngu ma xaw ne daal mooy mooy mooy mooy maire naa junna président président l'Assemblée daal ah man yooyu laa xam day am 60 mandats parce que mérito nañ seytaane la kii ku ma saaga fay ba mu yëg a laaj bi ku ma saaga doo fay xanaa nga bind ma message parce que jàngu ma ndax lii laa xam saaga lii bu dee jàngoo lii laa xam waaye écrit yi du ma xam saaga ma dëgg damay fay noonu laa toll buur noonu laa toll ci dëkk bi. léegi Macky naan parce que nit bu liggéey maçon bu liggéey ba sonn kenn du ko jox mandat am. ok Macky foofu ngi liggéey dëkk bi te maçon lu muy liggéey suuf fa la ciment. keroog dundu gu bi eh, nit ñi lekkatuñu naan. nit ñee bari yow buur nit ñee bari nit bu na tabax këram fay 60 millions. ah di di di di fay ko téeméer Macky deful dara da ngay wax borom kër yi ngay wax yow it. Macky Macky moom kër yi. Macky moom kay waaye am Macky moom kay am na nit ñoo xam ne suural leen yombul ay biiru ko la ko jigéen lan yor biiru ko la ko jigéen suñu borom def ci doomu aadama te xam ne doo suur doo suur doo suur dinaan bi daa yokku dafa yokku doo suur Macky deful dara Macky lu def la du liggéey mais mais xoolu oto yu yi dëkk bi ni mu naatee lamp yi tàkk nit ñi nit ñi suural leen yombul de am teer ah ah yaay wax Euh, li li dañ koy dañ koy tëjee ak euh, si actualité bi nga xamante ni moom la ñu jëm muy gàmmu gi donc ci màggal gi am nga benn message boo lancé woon ci ñi nga xamante ni ñooy pèlerins voilà donc gàmmu gi lan ngay dénk ñi xamante ni ñoom ñoo nar a dem gàmmu gi que ça soit Tivaouane Kaolack wala Touba ñu daal di tàggatoo tëj ba beneen yoon incha allah. laaj nga ma fu laaj nga ma fu sensible nag. Hmm. Hmm. Ah, te man taalibe Sëñ Babacar Si laa taalibe Cheikh laa. Hmm. soo waxee ñu ne fii laa far soo waxu ñu ne fii laa far du dëgg ah. mm-hmm. Mm-hmm. loolu danga may bàyyi ba ba ci ba ma am ci explication tuuti. Mm-hmm. damay dem xool gàmmu ji nu muy mel. xool lu ma ci xam su ma ñëwee def ci sorte mais instant yii moom ma ci wax a damaa defar sorte su ngeen demee sirap bi da ngeen ko nangu jëkkër jàmbur ci biir dal yi. da ngeen ko bàyyi yéen maanaam pour que yeeg loolu da nga lancé woon message ñuy dem. garab gi sens wu la laay ne dëkk mel ni Tivaouane. waaw nu mu selee ñu jëm fa. ban message ngay lancé xale jigéen ñi ngir bu ñu demee mën a jaamu yàlla. xanaa leer na xale jigéen ñoom bu doon màkk sax bu ñoo jaamu yàlla. ñu demoon waaw parce que ñoom ni bindoo la bon. parce que du ñu dal kër gu ñaaw. waaw dëgg la du ñu dal borom kër gu amul xaalis. dëgg la du ñu dal kër gu amul tilim. bu ñuy dem dañuy yóbbaale seen i 60 valises xanaa gàmmu gi nag ñu yóbbaale 60 valises. teewul kees la. ah benn fan la ñu yóbbaale am na ñoo xam ne ñu ngi préparé nangu jëkkër jàmbur yi. mais ah, mais mais lu mel ni gàmmu rafet jikko génn na benn sorti bu dem ñu rafet jikko rafet jikko comédien rafet jikko bi génn ci TikTok yi day sol verre. ñeen dañ jàpp ni. moo la euh, ñeen dañ jàpp ni dafa ni championnat yi. waaw non ñoo ñoom doon réew. jeex na waaw wuy ma xoola xam xoola xoola ñoom doon réew. dana mm. rafet jikko. non waxuma rafet jikko c'est-à-dire yooyu ay championnat ak final loolu loolu loolu c'est que xanaa xamoo si ba ñuy sinap déjà ñoom des des fois dañuy nekk dañuy réew dañuy réew ci trop wala ñuy influencé dañuy réew yonent bi amul championnat mm. yonent bi amul ligue des champions mm. yonent bi amul amul nawetaan yonent bi mooy yonent bi la ku nu bind moo gën ku nu ku nu leeram lañ leeram la séddale jaam ñi muy Seydunaa Muhammad hmm. du dëgg dëgg naa kon ku ku mel ne Seydunaa Muhammad duñ ko que bii guddi yonent bi la guddi yonent a ko bokk al ma naan tuuti ci ma mais guddi yonent bi ko dinañ ko lu ne mais guddi yonent bi guddi Seydunaa Muhammad nga xam ne ku nu bind moo gën Mm-hmm. ku ko tagg dem àjjana ku ko sopp dem àjjana ku ko tuddee doom sa yàpp yaram araamal na safara kon kooku kenn kon ñëpp ci yem ñëpp ci yem leeram la ñuy séddale jaam yi du dëgg kon nit ñi nañ xam ne yonent bi du ay caaxaan mm-hmm. yonent bi du a mooy mooy laas ci àddina su intéressé ma parce que man bëgguma ko kuy kuy pugal yonent bi affaire parce que ah mais Modou Gueye nee na li mu wax moom euh, kooku laa mu waxaat li wax mu ne. laay boo tàng. ma yow mais grand damaa bëgg a rek raayoo. ah il a xayma. wéé té té té té. wala yàlla topp ko dara. mais grand yow xanaa. mais sofe naa. sofe. With